boobu ba léegi nag ñu ngi ne tekk ñu ngi ne tekk tekkaaral waa aar Sénégal tekk tekkaaral boobu du tooy du faible du ñàkk xam looy wax dafa doon tekk tekkaaral boo xam ni ñun ñi ànd nekk ci coalition bi ngeen gis ñu ñun ñi ñëpp dafa am nu ñu ñu mooñe ci xalaat ci xam-xam ci liggéey ak nan lañuy ñuy wutee Sénégal parce que nag dinañu gis ne wutin bi bokkul te ñun loolu dañ koy assumer Thierno bokkum ñëw na sànq ci péripéties yi nga xam ne yépp moo fi xew maanaam lépp lu ñu war a mën a teg candidat ci élection législative teg nañ ñu ko ñun waa aar Sénégal ñu ne tekk tekkaaral noppi parce que dañu jàpp ne réew boo ko bëggee jiite da ngay tënku ci charte réew mi manoo nag ak chaque fois bu dee règle yi nga xamee ne dañu la ko tegal mënoo ko respecter nga xool nan nga koy jalgatee wala nga xool nan nga koy contourner loolu bu ci kanamee dinaa ci ñëwaat dafa am ñaari réponse yoo xam ne c'est précis yoo xam ne dama ko bëgg a joxe par rapport ak actualité bi damay jox benn bi waa Bennoo Bokk Yaakaar jox beneen bi suñu xaritu waa Yewwi Askan bi bien que opposition bi lañ bokk waaye ñun ñëpp opposition bi bu ñu ciy dox nañu doxee doxalu dëgg donc dama leen di jox ñaari interprétation bu njëkk bi problème bi am ci list Benno Bokk Yaakaar ñëpp xam nañ ko respecté wu ñu parité ci seen liste de suppléants donc ñoom ci seen bopp xam nañ ne respecté wuñu ko ñun suñu mandataire dem na constaté ko loi bi dafa wax ni bu dee respecté wuloo parité mënoo bokk ci élection yi donc le résultat immédiat mooy Benno Bokk Yaakaar warul bokk ci élection yi démb ba léegi nag ñu ngi leen di dégg ñoom ak seen ay juris ñoom ak seen ay communicant ñu indi benn argument bu bees boo xam ne moom lañ ñu bëgg a jaay te argument boobu ñun xam nañ fa lañ jëm ak ñoom dañu leen dégg ñu ni ñoom nangu nañu ne respecté wu ñu parité ci seen liste suppléant liste national donc loolu aveu waxtaan bi nekkatul ci respecté nañ wala respecté wuñu mais ñu tegal ñu ci ne ñoom liste suppléant bokkul ak liste proportionnelle nationale bokkul ak list titulaire et que ñoom tey xel nangu na ñu dindi seen liste suppléant invalidé ko teg ko fële garder tout simplement seen liste titulaire gis ngeen loolu ñoom ñi koy wax seen bopp ñoo xam ne yenn wul maanaa ci droit yenn wul maanaa ci politique yenn wul maanaa ci logique administrative parce que booy déposé dañ lay wax ne da ngay déposer sa candidature benn liste boo xam ne mooy sa liste nationale donc y une liste national ci biir liste national boobu mu am ay titulaire ak ay suppléants d'ailleurs c'est tellement pertinent que booy déposer mënoo ñëw rek ne damay déposé liste titulaire duma ma déposer liste suppléant mënul nekk parce que boo déposer list titulaire te déposer woo liste suppléant sa dossier baaxul donc bu dee dafa am benn irrégularité lenn lu baaxul ci sa list suppléant dañuy jàpp ne benn liste cundum la liste bi yëpp mooy yàqu liste bi yëpp moo baaxul donc puisque Benno Bokk Yaakaar respecté wul parité ci liste suppléant am liste nationale bi yëpp lañuy jël teggi ko teg ko de côté donc Benno Bokk Yaakaar mënul bokk ci élection yi leneen lu ñu leen fi wax nag du droit du science juridique du science politique ay waxu wax sa lu ma neex la jaakaar ne yow yaa am doole et boo forcé dina jàll dinañ ci ñëwaat beneen tontu bi ñuy tontu suñu xaritu waa Yewwi Askan Wi ñoom aussi ni waa Bennoo def la ñu def ñoom nangul nañ seen bopp ne seen liste dafa am problème ñoom ñoo ko nangul seen bopp parce que dañu leen jox trois jours comme ñun nit ñu ko joxee nee leen lépp lu fi dal keneen rek dal na aar Sénégal ñun 16 notification lañu am bu ma juumul 16 ñu jox ñu trois jours loolu itam déggu leen ñu ci benn yoon ñu wax ci dañu ñu loi bi nee na seen 16 yii dafa am ay problème u dafa am ay problème u date dem leen lijjanti ko li ñu daj ci ñetti fan yooyu entre Ziguinchor podoor maatam ak fépp foo xalaat ci Sénégal waxuñu ko kenn waaye dañu garder suñu dignité dem lijjanti problème boobu ñëw déposer ko ba liste bi set wecc lool suñu mérite la waa am na ñeneen ñoo xam ne yéenewuñu leen ko encore une fois mais dem nañ ñoom def leneen loo xam ne du loolu donc ñoom ñu nangu ne seen liste boobu baaxul waaye ñu dégg leen aussi ñoom démb ba léegi pour influencer opinion bi ñu génn benn argument bu bees boo xam ne tam du droit parce que dañu ni seen candidat boobu inéligible maanaam mënul bokk dem nañu changer ko waaye changement bi baaxul maanaam candidat boobu ba léegi mënatul bokk ñu ne puisque benn kandidaa la dañu war a ñëw dindi candidat boobu remplacer ko donc candidat bi moo baaxul waaye list bi day continuer baax demewul noonu parce que loolu ñuy wax dafa fekkoon ne mayeeguñu leen ñetti fan yi nga xam ne ci la ñuy changer seen liste ñetti fan yooyu benn yoon lañ la koy may bu ñu la ko mayee nga changer bu baaxul maanaam candidature nit kooku baaxul te amatoo possibilité changer puisque candidature boobu baaxul te amatoo possibilité changer te kooku puisque baaxul dañ koy seppi ci liste bi sa liste dafay incomplète donc puisque la liste elle est incomplète elle est irrecevable donc atta angle d'attaque bi ñu jël ñoom naan du problème mu recevabilité liste mais problème mu inéligibilité benn candidat la du angle bu baax parce que irrecevabilité liste bi c'est pas une conséquence immédiate c'est une conséquence différée qui résulte du fekk que bi boo ko seppee liste bi dafa incomplète te list bi bu incomplété boo demee ci code électoral bi dañu lay wax ne la baaxul donc suñu xaritu Benno Bokk Yaakaar ñoo yor pouvoir ñoo yor doole mais nañu xam ne ndogal dal na seen kaw ñu nangu ko suñu xaleti opposition bii di nekk te opposé wuñu ak ñoom nañu xam ne ndogal dal na seen kaw ñu assumer ko ñun waa aar Sénégal comme ni mu ñu ko yoon maye may na ko ñépp ku mu neex demal direction général des élections nga xool suñu liste nationale demal direction générale des élections nga xool suñu liste départementale bu dee am na ci lenn loo xam ne yoon dafa wax nañ ñu dindi nañ ñu dindi ñun aar Sénégal bu ñu bokk ci élection yi may nañ ko ñëpp li ci topp nag moom mooy dossier yi ñuy wax warul woon sax yegg cour constitutionnelle parce que bi ñu gisee ne list département wu Dakar Yewwi Askan bi dafa am problème waa direction générale des élections ñoom ñoo jël benn acte invalidé déci euh, liste départementale boobu ñooñu act boobu la ñuy jël dem conseil constitutionnel man de yëgaguma décision walla acte bu direction général des élections jël pour wax ni waa Bennoo Bokk Yaakaar seen liste suppléant am na problème foofu la ñu war a commencer ñoom administration ils doivent constater que liste bi am na problème ñu rejeter ko bu ñu ko rejeter ñooñu bu ñu d'accordul ñuy door a dem conseil constitutionnel même chose la ñu war a def ci liste Yewwi Askan bi nga xam ne seen changement bi baaxul dañ ko war a rejeter balaa ñooñu di dem ci conseil constitutionnel gis nañ nag ne ñu ngi nekk di xaw a hésiter jëlaguñu décision bi loolu mooy indi ci li nga xam ne ci laa jëm plus tard conseil constitutionnel dañu am benn message bu ñu leen di yónnee parce que tey dégg ngeen coow li nga xam ne moo fi commencé jib ñun ñi ñu ci bëri dañoo jàng droit ba am ci lijaase yi gën a kawe ñu respecté ñi nga xam ne dañu nekk conseil constitutionnel nekk ay juriste am ay lijaasa ñu respecté leen lool parce que ëllëg bu ñu jëloon réew mi c'est une institution boo xam ne dañuy liggéey ak ñoom te une institution boo xam ne dañ koy respecté waaye nag ñoom dañu dalalul suñu xel parce que saa yu problème amee ci question politique li nga xam ne mooy yàq climat politique bi ci conseil constitutionnel boobu lay jóge du ma nettali li fi xewoon yëpp ci Sénégal benn exemple rek laa leen di jox pour wan leen fi nga xam ne fa lañ jëm président de la république bi fi nekk mooy président Macky Sall moo ànd avec son juriste Ismaïla Madior Fall ñu proposer ñu référendum en 2016 wax li fi amoon yëpp bëggatuñu mu amaat ci Sénégal ñu ne pour que li fi amoon bañ amaat ci Sénégal dañuy dugal ci constitution bi li ñuy woowee clause d'éternité maanaam ay ponk yoo xam ne boo ko defee ci constitution Sénégal kenn mënatu ko changer lu dul da nga indi beneen constitution mooy mu ngi mel ni tey nga am sa kër nga jël kër bi jox ko ay gardien gardien boobu ñoom ñooy conseil constitutionnel nga ne leen néeg bii mën nga fi dugg douche bii mën nga fi dugg salon bii mën nga fi dugg waaye am na ñeenti néeg yoo xam ne mënoo fa dugg ñeenti néeg yooyu mooy article 103 constitution bi ñu ne close de d'éternité lépp loo xam ne mooy forme républicaine de l'État kenn mënu ko laal buntu buñ dul tijji la ñu ne durée du mandat du président kenn mënu ko laal buntu buñ jul tijji la ñu ni nombre de mandats du président kenn mënu ko laal buntu buñ dul tijji la ñu ne mode d'élection du président kenn mënu ko laal buntu buñ dul tijji la sénégalais yi voté ko mu nekk seen constitution en 2016 ñu ñëw 2018 président de la république Macky bëgg a dugal parrainage parrainage ci mode d'élection la bokk du président de la république loolu dégguma fii benn juriste di ci wax dégguma benn homme politique di ci wax dama leen bëgg wax fa ñu jëm donc président bu ne na ñuy fale président kenn du ko laal parce que buntu bu ñu mënul tijji la mu ñëw 2018 dem conseil constitutionnel conseil constitutionnel boobu bu dee am na fulla bu dee jàngam mat na bu dee Sénégal moo ko tax a toog danaan président de la république mode d'élection parrainage ci la bokk bunt bu ñu mënul tijji la parrainage mënul jàll loolu mooy yoon il devait se saisir d'office pour dire au président mënuñu am parrainage parce que ci bunt yi ñu mënul tijji la mais puisque ñoom defuñu ko tey président bu leen ñëwee ne leen Sénégal bëggatuma mu nekk république dama bëgg doon buur bunt boobu ñoom jëlañ ko ko tijjil bu président ñëwee ne leen dama bëgg ngeen yokk mandat yi bunt boobu jëlañ ko ko tijjil bu président ñëwee ne leen dama bëgg ngeen yokk at yi may def ci Sénégal buntu boobu dinañ ko ko tijjil bu président ñëwee ne leen ñun kat waa Bennoo xam nañ ne respecté wuñu parité bi su suñu lis waaye bàyyi leen mu jàll bunt boobu conseil constitutionnel daf koy tijjil président la république ñun nag li ñuy wax tey mooy nii baara yëgoo nii combine bëre du fi amee nii combine bëre nii baara yëgoo du fi amee foofu laay tëje gis nga li ñu boole ñun boole ñu ñun waa aar Sénégal ak Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan bi ak Wallu ak beneen coalition mooy Sénégal bi nga xam ne moom la ñu bokk ay règle ak ay charte di ko doxal ba ñuy dem élection présidentielle 27 candidatures la ñu amoon ñu jël 22 yëpp recalé leen est-ce que 22 yooyu dañu taxaw ne ah ñun dañoo bari doole bu ñu bokkul élection dëkk bi dañ koy taal wala bu ñu bokkul élection climat social bi di dox donc nañ ñu boole est-ce que loolu daf fi amoon. ñañu recalé woon Thierno Alassane Sall mii ci la bokk dafa ànd ak dignitéem dem liggéeyiwaat képp ku ñu fi recalé parce que loi mi moo la recalé jëlal ànd ak sa dignité nga dem liggéeyiwaat xaar beneen yoon. bés bu ñu fi commencé di wax ay waxu grande coalition oui les deux plus grande coalitions grande coalition yaa ngi koy xamee sa cëppaandaw ga le 31 juillet bu ñu demee élection. le premier août résultat yi génne ki jël P c'est une grande coalition ki jël 2 c'est une grande coalition tey xamul kan mooy grande coalition ak mooy kuy petite coalition respecter loi boobu moo tax am na ñoo xam ne amoon nañu xalaat waxuma rek dem déposer amoon nañu xalaat bokk ci élection législative yi demuñu parce que amuñu 15 million loi moo leen tënk ña am 15 millions dem ñu rejeter leen loi moo leen tënk ñi ñu téye ci parrainage loi moo leen tënk. léegi pourquoi ñëpp war a respecter loi ñun gisu leen ñu ñun condition ñun ñu fi nekk yëpp ay kilifa lañ xamu leen yan condition la ñu defee suñu parrainage dañ doon ji jege suñu bureau secteur heures du matin 11 heures du matin ñëpp dajalewaat pourquoi parce que dañu bëgg a respecter charte Sénégal ku keneen defee leneen nag ba respecté wul charte Sénégal ñu ñëw nañu non non non parce que léegi dafa war a am paix sociale Sénégal stabilité ñàkk stabilité ak paix sociale mooy 17 millions sénégalais ànd takk ay charte yow nga ne respecté wu loo charte boobu parce que yow da am doole. loolu mooy sërëxal réew ma tëj gis nga loolu bu ñu ko fi defee seen liste yi bu ñu ko baare yëgoowee combine bëre ko conseil constitutionnel conseil def ko ba ñu jàll et je mesure bien li may wax ëllëg Sénégal ku mu neex nga sàcc bu ñu la jàppee nga ni damaa xiifoon moo tax ma sàcc ku mu neex boo demee élection législative ñu gañe la nga ni man dama am doole damay créer sama assemblée nationale siégé ku mu neex ëllëg boo demee élection présidentielle bi ñu gañe la nga ne maay président nga def sa gouvernement parallèle ku mu neex parce que nag bu dee doole mooy wane ne da nga war a respecter loi wala waroo respecter loi loolu Sénégal bindoowul noonu 53 yi nekk ci liste Benno ak 53 yi nekk ci liste Yewwi gënuñu 53 yi nekk ci yeneen liste yi fi amul kenn ku fi indispensable dama ne la koo fi teg yóbbu ko assemblée nationale mu doxal assemblée nationale yu gën yi fi nekkoon te ñooñu ñoo nekk ci liste Aar Sénégal nii combine bëre nii baare yëgoo respecté waa dëkk bi ma terminé Benno Sénégal Benno Bokk Yaakaar ñoom nee na ñoom ñoo yor doole te xalaatuñu benn moment ñu dem élection sans ñoom pour lan xam nga lan la ñu ragal te ci lañ jëm bu Benno Bokk Yaakaar demul élection ça veut dire que mooy majoritaire assemblée nationale ça veut dire que opposition mooy am premier ministre ça veut que seen prochain gouvernement mu ngi nii toog ça veut dire que dañu Macky Sall jeex na ci foofu nag lañ jëm